asalaamaaleykum sama gars yi maa leen di ziar di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay di ziar sénégalais yëpp di leen baal ak di leen baalu ak ci Korité gi ñu jógee di saluer sénégalais yëpp nag tout ce jeune di wax ni daanaka ba ñu amee ndam ba léegi sax Fall Paradise génnegul félicité jeunesse bi ak ndaw ñi nga xamante nii ñoom ñoo doon mëne seen combat depuis 2021 ak léegi combat bi nag doon kon na combat bu metti bu tar bu diis ñu ànd ko liir leader Seydina Ousmane Sonko di ko ñafe jeunesse bi jug takk taxaw bëgg changement. mu nekkoon combat boo xamante ne nii maanaam nekkoon nañu ak yoo xamante ne nii maanaam pour ñu gañe leen daanaka day doon jar ñu joxe suñu bakkan ba liñ ci gàllankoor dal ñu ci fekk ci lépp fekk ñu ci ci bu bëgg rek pour Sénégal jëm ci kanam Sénégal avancé doon Sénégal bi gën. ba gis nga tey yàlla may ñu ci ndam ñu koy santé ay nag jeunesse Sénégal ndaw ñi te su ndaw ñi xañ na nag am na pas yu conscience ak kilifa yu conscience yoo xamante ni moom wax dëgg fa la ñëwoon nañu uuf ndaw ñi jàppale leen ci combat bi ba tey ñu xam ni tey leen mooy intérêt Sénégal ñu dox ci loolu waaye amoon na ci ñoo xamante ni dañu loon contre guddi ak bëccëg suba ak ngoon dañu diaboliser di yàq suñu der ndax tey combat bi doon woon combat bu yomb Seydina Ousmane yàgg na ko wax ndax jablisation bi man may dugg ci combat bi mën naa ni activiste la boo xamante ni nii 2016 laa commencé suivre Ousmane Sonko di ko topp. di ko topp ba deux mille vingt et ma doon dégg ay rumeur ci waa APR bi ñu jógee élection deux mille dix neuf ñu ni balaa deux mille vingt quatre dañu fexe ba tëj Ousmane Sonko ma bàyyi loolu xel moo tax bi projet Adji Sarr jógee bi ma njëkk dégg ñu koy ruumandaat ñu ni benn leader bi ñu Ousmane Sonko dafa violé benn xale dama leen du dégg amul. te bi ñu demee ba def deux ou trois jours ci laa xam ni li tëgg dil bi ak li ko teg. moo tax nag ci laa jug taxaw xam ni la ma doon wër ni ngi nii ndax dama ànd ak mag dama ànd ak Abdoulaye Wade mu trahir ma ma ànd ak Sall trois ans ma xam ne du dem ma won ko gànnaaw jàkkaarloo ak moom su doon sama coobare man Fall Paradise 2018 Macky Sall du falu barke Cheikhul Khadim ndax xeex naa ko lu ne àndoon ko nag ay nit yu jàpp yu ma jàppoon ni am nañu ngëm-ngëm yu ma jàppoon ne am nañu détermination ñu ma lay jox exemple rek ku ci mel ni François Hélène Guèye mu ngi woon ci combat bi ku ci mel ni Assane Diouf mu ngi woon ci combat bi ak ñeneen ñoo xamante ni mënu ma toog di leen lim ñoo xamante ni nii dañoo bokkul groupe ay groupe WhatsApp ku ci mel ni nga xam ni moo jiite woon euh, euh, groupe François bi ñu koy Pape Diop ay Mansour bëri woon nañ ñuy wax tout sauf Macky di combattre loolu ndax boobu amaguñu leader te boobu it man amaguma leader avant 2019 ñu koy mëne ba biñ jógee élection 2019 ci la Idrissa transhumé François daw ànd ak moom trahir combat bi ñun ñu quitté groupe bi groupe bi daanaka tas ku nekk jël seenu bopp man ci laa ñëw nag jël sama position ànd ak Seydina Ousmane pour li ma li ma yee ci Sénégal ak li ma doon wër ñu bokk bokk gis-gis boo jëmukaay combat bi nag ñu koy mëne dacc lu ne nag dund aussi lu ne moo ci doon ànd ak ay nit man barke Cheikhul Khadim ñu wàcc ci liggéey ñu doon wàcc si le terrain yoo xam ne dañ daan toog daanaka suñu waa kër sax dañ doon wax ni ñun est-ce que am nañu famille wala am nañu ay mbokk ndax fi ñu tegoon combat bi ak li ñu combat bi jaraloon ndax bëgg rek Sénégal bu changé xam nga mu méttoon trop nag méttoon trop ñu di ko ñàkkante barki Serigne Touba un jour sax maa ngi fàttaliku euh, dama ñëw sama soxna naan ma sa yaade tey suba fii la bëggoon indi saraka yi pour ñu fanaan sa buntu kër sa buntu nekk ndax pour nga bañ a génn man ko même bu ñu fanaanoon it bu mu xëy damay jéggi jàll ndax combat bi moo ko laajte moo ko jar ma ci doon jottali rek samay nijaay yoo xamante ne nii dañ ma daan interdit toogal bu ñu la ci jàppee bu ñu la ci tëjee man leen bu sama bakkan dee sax bëgg naa man jàpp naa loolu sama ndam loolu sama pouvoir ndax lii ñu nekk tamit doon ko xeex defe naa bu ko sunuy maam xeexoon wala sunuy baay ñun duñ sonn léegi nag ñun loolu loolu lañu bëgg a lañu bëggal sunuy doom bëggal ko sunuy set moo tax ñu jóg joxe sunu bakkan ma ci jaali ñi nga xam te ñëpp ñàkk nañ seen bakkan ku ci mel ne baar mi nga xam ne moom laaj gënoon miin nga xam ne moom lañ ci mujjee rey daanaka pikin jour bi ñu jàppee Ousmane Sonko ba suba ga xam nga mu mettoon trop man mi tey gis nga jël naa ci bal blanc fii ci Kër Massar premier juin xam nga tëdd naa ci feebar feebar bu métti jóge ci ñu dóor ma ci kaso barke Cheikhul Khadim te teewul boobu laa gën a am détermination boobu laa gën a gëm ni Sénégal dafa war a changé ndax man musuma gëm ni Sénégal Macky Sall dafa ñu war a jiitewaat wala ku bokk ci Macky Sall dafa ñu war a jiitewaat man dama mës a gëm ni projet bi day conclure 2024 incha allah rabbi te mission bi day mat loolu laa mës a gëm barke Seexul Xadim ñu di ko mënee nag nekk ci di ko def. jabilisation bi lool ay salafis si ngeen ay jihadis si ngeen ay terroristes si ngeen lu ne dégg nañ ko. teewul ñun ñu xam li ñu xam jàpp fi ñu jàpp te xam ne yëpp ay yàq der la ay sos nit la ay jéem ki ndax ñoo yëpp li ko waral mooy ñi nga xamante ne mooy ñooy toog muy dox bëgguñu maanaam régime bi fi nekk jeex ndax 1960 ba léegi loolu la ñuy loolu la ñu naxee suñuy maam naxee ko suñuy baay naxee ñu ko ñun ndax dama daan dégg tey ma juddu fekk ñu may nekk mu Mamadou jox ma judd nettali ñu may nettali histoire Cheikh Anta Diop ma judd ñu may nett ay histoire Lumumba ay ñoo xamante ne ay jàmbaar la ñoon ci Afrique ñoo ñëpp dañuy mujjee sacrifié ngir lan ay nit yoo xam ne dañoo ñëw di xeex pour seen interpersonnel. Seydina Ousmane judd ci seen biir ñëw ñun ñu koy wan ñu comme exemple bi ñu doon wax jox ñu comme li ñu doon wax ci ñee ñu ni nekk comme la ñu bëggoon def ñee lañ leen lañ koy def ñu leen du ci dem ndax ña ñam Mamadou Dia fekk noonu tombaleen jamono du ñu Ousmane Sonko tombal jamono Ousmane Sonko en même temps du Mamadou jox ndax bu ñu leen seetaanoon foofu ñu jaaroon Mamadou Dia jaxase ko kilifa diine yi jaxase ko sëriñ si foofu la ñu tànte Ousmane Sonko ba sonn jàllul ndax tey même bu ñu demee ci kër kilifa diine naan Ousmane Sonko nii la Ousmane Sonko naa la taalibe kilifa diine yi ñooy wëlbati ko ànd ak Ousmane Sonko votel ko ñooy ànd ak Ousmane Sonko xeexal ko ñooy Ousmane ànd ak Ousmane Sonko def ko sax jëwriñ barki Seexul Xadim te foofu lañ tolloon ndax ku mel ne Fall Paradise Baye Fall la ku ko xam-xam ni ay cant la xamoon topp sëriñ bi yooyu la xamoon. yaa ngi dégg même sax bu fekkee euh, Sénégal intéressé woon na ko doon na ci dox doon na ci sonn pour Sénégal changer waaye jëlu ko woon maanaam comme ni mu ko jëlee nii au sérieux ndax tey dama moom lu ma doon wër ba gis ko nag mu jaral mu mu maanaam mu bañ mu rëcc ma ma topp loolu ba tey am ko moo jaral ma ma tëdd ci kaso. mu jaraloo ma feebar ci mu jaraloo ma jël ci bal balan te sama bakkan sax xajoon na te bu ko def bu ma ko defoon dama koy sant yàlla ndax foofu laa tegoon samay mbir fii pour Sénégal baax ndax bëgguma tey ëllëg suñuy doom judd suñu kanam bàyyi lu tax ba ñuy xeexal Sénégal gisuñu la bokkoo wala sama sama sët ñëw ne maam est-ce bu ñuy xeexal Sénégal lu tax bokkoo ci ñun du ñu fas yéene bokk ci ñi nga xamante ni dañ leen di noot wala dañ leen def ay jaam non du ñu fekk la ndax suñuy deret amul loolu barki Seexul Xadim suñuy maam amul loolu ñun ay garmi lañ te fu ñu fekkee fu ñu nopp doomu aadama dañ dañ dañ ñëw taxaw ni leen lii du fi dal ndax Macky Sall loolu lañ ko jàppale woon 2012 ou 2009 ñu koy génne assemblée mu génn di victimiser wu di jooy comme xale ñun ñu taxaw devant ak maître Abdoulaye Wade xeexal ko ba ay bakkan wadd ci ñu fal ko mu génn troxal Sénégalais yépp tëj ñii kaso ñii mu rey leen ñii mu def leen ndax tey bu ñu demee ba ñi nga xam ne ñoo ñu war a aar di ay kilifa. nga xamante ni nii tey ñoom la ñu tey bu ñu jaaxle ñu ndaw ñi ci ñoom la ñu war a jëm ndax li maam ko ci bar ma doon wax naan mag mën naa bàyyi ci mu réew waaye du magu Sénégal yi ma gis ndax tey bu kilifa taxawee nii état dafa war di tëj di rey ci kilifa muskalaf koo xamante ni yow danga nga war da ngay wax ñu lay dégg sa mën a fu ne nga ni da nga war di rey di di tëj ba pare kooku dégg la mu wax it di def ko rey na tëj naan wax man ñi rek tëj na ma rey sama copain keuse boo xam ne baara xam naa bu baax dañ ko rey dóor bal mu wàcc recruter ay nervi teg ci kaw terrain bi kon moom la Xaadim Samb doon wax mooy ci turam lay jaar Xaadim Samb la mu doon wax moom Macky Sall ko jëfe nit taxawaat ci ci ci ci ci télé sëñ Cheikh Thioro sëtu Serigne Touba taxaw ci ab màggal tudd Ousmane Sonko ñu ne ko bu ko fi tudd maanaam di yàq der benn nit benn benn nit la boo xamante ni moom du sénégalais étranger la wala moom dafa mel ni benn jihadiste comme ni ñu ko doon waxee wala salafiste wala benn nit la boo xam ne ku bon la daal ku ku ku ku ñu war a sànni ci so ku ñu war a beddi société bi la. ñun nag ñu taxaw ni leen loolu du jàll ndax ñoom ñi ko doon def ñëpp ku ci nekk yaa ngi ci ay milliards sénégalais yu tëdd ci yàq sa njaboot di buur di bumbi ba ci kii exemple bi ma lay jox tere Mansour Faye mi doon def sans passation de service xale bu am 22 ans. nga xam jàngam sax pareegul moom la def milliardaire di doomam boobu benn Fall Paradise ma nga am problème mu xëy ndékki Fall Paradise ma nga am problème mu jënd café Fall Paradise doomam mi ngi feebal mu am problème mu faj ko wala Fall Paradise war a am xëy dem liggéeyi ut ci lu mu jàpp mu nu ko mënu ko am. léegi ñu fekk benn Mansour Faye boo xam ne avant 2012 yoru woon dara benn pièce d'état la doon jaay fii di foncé wala benn kii la doon liggéey fële tey kooko nekk milliardaire nga gis tey benn Mame Mbaye Niang boo xamante ne 2011 bi ñuy euh, xeex Abdoulaye Wade ma nga taxaw ci giri palais t-shirt bi mu sol 300 sama t-shirt bi gu ëpp prix Mame Mbaye Niang moom tey doon milliardaire ak ñeneen ñu mel ni ma ay Farba Ngom ñëpp nekk ci biir nguur gi di buur di bumi taxaw di fëgg taabul force reste loi te ñoom ñi koy wax kenn doxu ci ci loi tax tey bu ñu jëlee exemple comme kii génn tey di tàgg Ousmane Sonko li mu ko doon wax démb ak barke dem mooy suy waa ji nekk ñu jiyoon faux billets yi grand franc deli la ko ci poos ñu xëy xëy benn un bon jour rek ñu gëmloo ni daa feebar non non dañ koy bay liberté provisoire bàyyi mu jàll benn Fall Paradise boo xamante ni da doon xeexal réew nga jël ko teg ko kaso un an fàtte ko fa. li jëntuwoo dossier bu ñaanee maanaam liberté provisoire sax euh, procureur rejeté yow soo doon soo takkee la bracelet Pastef ñu jàpp la sax boo demee amul wax mandat dépôt tout de suite ñu mëne di combattre di mëne lool di mëne lool tey ba yàlla may ñu ndam di sargal nag Seydina Ousmane Sonko ndax lépp lu citoyen sénégalais dund rek ci combat bi dund lu mel noonu waaw ndax tey li sëñ Bara Ndiaye waxoon rek tey Ousmane Sonko bu tuddul woon kaso wala li mu dund dund ko ñu xëy jox ko pouvoir bi jàpp naa du xam li ñu ko jox mooy la waaye dañoo dund li mu dund. li lépp lu ci waaye mu dund rek dund lu ko raw teg nañ ko lu ko raw moo tax kenn mun mënta ndamu ci kawam kenn mun mënta kii ci kawam na lii kat xeexu ko daa toog ñu yëkkati jox ko ko non non da ko faayatin ànd ko peuple sénégalais bi c'est euh, euh, peuple bi conscient bi kon Seydina Ousmane dañ koy sant di ko gërëb di leen wax ne gouvernement bi nag puus mu dem puusul mu dem bëri ko ci mbartal la pour mu clair gis nga ñii ñu teg nii nga xamante ni ne dañoo jël ku ci nekk si li nga màcc ñu jox la ko ngay doxal bien boo ngeen xam ne yéen ñi nekk di mbéli mbéli toujours ki ci mel ni maa ngi dégg ay mbëru lamb yi fan yi ku ci mel ni ay euh, xaw ma trad communication traditionnelle yi xaw ma di génn ku nekk di mbelli mbelli gis nga Birame Souleye li mu wax c'est normal mu wax ko ndax ba ñuy xeex démb ak barki démb mbëri booba ña ngay dem palais ñu leen fay invité di jël xaalis Sénégal di leen ko jox te pourtant mbër yooyu lu ñu nekk Fall Paradise bokk na ci ñi leen ko def keneen ay keneen bokk na ci li ñu leen ko def léegi dem ba Fall Paradise ñu koy torturé di ko duma ana mbër yooyu noonu boobu ñoom Balla gay muy Modou loo muy Siteu kum ci mën a doon loo mën a def tey boo amee combat sama dërëm ñaar dërëmu sénégalais dërëmu euh, euh, xale bu ndaw ñépp ñu dajale jënd ay t-shirt lu ay oto dem feesalal esat léegi tey nga dem ba yàlla may la doole gouvernement bëgg a am lu mu def di ko jaaree ci yow nga di ko nangu pourquoi te nga war a loolu xam ne yow loo mën a mel sa peuple moo la ko teg bu peuple bi demee ba am loo xamante ne nii taxaw na devant pour jàkkaarloog loolu nga war ko mën a soutenir jàppale ko nga di ko contrer xoolal ñaamu ndaw mbër mu ndaw la amul dara te dafa taxaw ànd ak peuple xoolal booy bi di dëkk parcelle ah nga xamante ni ànd ak Sonko sax tax na ñu xañ ko ni ko doo am dootoo amati lamb ñu signé contrat. ana Kona jóge na dëkkam dem na ba làmb ji bokkatu ci ba mu jara ko jóge dëkkam dugg yoonu Nicaragua pour dugg États-Unis ndax mu doxataal bi ñu ko fi bu doxataal mu tegu ci lan xoolal Ama Baldé ñu téye ko ci benn combat boo xamante ni war na ko mën a bëri ñu koy xeex ndax Seydina Ousmane mi mu tudd wala mi mu àndal pour pourquoi ci ñoo xamante ne ni ñoom dañoo xam ne ñoom li li ñu doom ñoom defuñu ko seen bopp nit ñee leen ko def te peuple boobu tey ñoo leen soxla tey dañoo war a taxaw seen ginnaaw soutenir leen te su ma déggee benn buur géwél koo xamante ne nii lan la fas yéene dundee toog di wax pour bu bu waxul du lekk toog di martaatu nit di ginnaaw nit sa maam nangam sa nangam sa nangam barki de maa ngi seetaan benn vidéo ñu ni ci jamonoy Covid 19 bi ñu ni ñoom dañuy manifesté wu ñoom euh, communication traditionnelle ak yenn benn ministère bi mu déggee auto di ñëw rek dafa jug daw kon kooku lan la doon xeex lu interpersonnel. lan la doon combattre te période boobu noonu pourtant muy xeex loolu pour ñu jox leen ñoom lu ñu toogee seen kër boobu sénégalais yi ñu ngi leen di tëj di leen duma fekk nit ci biir këram muy julli ak njabootam ñu jàpp duma fekk nit ci biir jàkk juma ñu jàpp duma te ñoom boobu géwél yi ñu ngi toog Fadam ñaata combat am ñetti combat ñetti défaite xam ne mënu jaan ci xale bu ndaw Fadam juddoo xale bu ndaw nga avenir nga say moroom ñoom guy gi tey li ñu am mënoon ko am sa ñàkk jom ak sa bëgg lu yomb moo la yóbbee lii tey di toog bëgg a nekk benn communication dem bay sax di gérer ay plateau di bokk ak ay paa yoo xam ne sa moroomu bàyyi lañu ci plateau jéem a jaay dama xam làmb tax xamoo làmb ndax boo xamoo làmb di lañ la jot a jox ci combat nga nga daan ko te lépp defat la yow yaa ñu war a jox exemple waxuma laa dara taxul nga gën ma metti nga taxaw di tëkku Birame Souleye yéen boo leen aw xamoon dara wala ngeen man dara élection yi passé moo ju Amadou Ba ngeen dem soutenir ànd ak moom di ko wan ni mooy gagné yaa ngi dégg te yéen li doon seen pexe tey bu Amadou Ba gagné woon tey ngeen gën a gundaandaat gën a seen i privilège gën a yokk léegi yàlla dumale wan ni leen yéen ñëpp dama leen di dégager loolu metti na leen ngeen bëgg a porox ndollu ci li su lay wax tax ngeen bëgg a yor seen lammi ñu ku nekk di ubbeeku ku nekk di ngaawam du jàll. ñun dañ leen wax ni ki nga position ba ñu taxawoon démb di défendre parti bi di défendre Pastef di défendre projet bi ba léegi tey tey lañ gën am détermination bi ndax gis nga li ñu yor ni ñaanuñu ko saraxuwuñu ko yalwaanuñu ko dañ koo dañ koo dañ koo jaayante ba jot ko li ma leen di wax ni sarax ndonga jaay wala mu tibb ak dooleem loolu moom mooy combat bi neexaluñ leen ci ndax tey bu leen ci doon neexal yéen bu doon seen pexe même seen leader bi gëm. amul pexe bu mu deful pour éliminer ñu dissoudre na suñu parti tëj na suñuy leader tëj na suñu élément yoo xamante ni jàppoon na ñooy vainqueur euh, combat bi ñëpp te taxul ñi fi sénégalais ni ko du jàll ba mu demee ba xam ni coon li ko Seydina Ousmane waxoon rek dafa téye pomiteer bu tàng ci loxoom daal di koy mujjee bàyyi pomiteer boobu nag ba léegi mi ngi fi pomiteer bu tàng boobu ba léegi fanam ak yéen ñu mel ni moom ñi ngi fi ana musicien yi seen soirée ñoom ñoo koy feesal peuple sénégalais bi fu ñu tëgg soirée ñu boole sama 1000 francs sama ñaar dërëm sama ñetti dërëm dajal dem dimbalee leen dimbalee leen ko yooyu moo fiy jeex nga toog muy dox ku mu naqari nga xoolaat sa bopp. li tax benn li ma dégg benn waaye wax ko sànq lan moo tax bi ñu waxee toog muy dox jeex na fi déggoo maçon bu kaas déggoo soudeur métallique bu kaas déggoo mécanicien bu kaas déggoo kenn koo xamante ni mi ngi xëy di bàyyi góorgóorlu wala ba ci bàyyi peeli ku kaas ndax ñoom tooguñu muy dox dañuy xëy di kurti kurti lu ñu am yéen ñi nga xamante ne nag ngeen bëgg a gàddu ci micro ngeen jàpp ni ci ngeen war a mën a amee li ngeen di lekk ka naan moo tax bu wax ji jotee da ngeen da ngeen di tuuse ndax dégg naa sax koo xamante ne ma naan man damay juutu sax muy dox juutu xam nañ ñi koy def ci tant que kilif nga ni yow nitu diine nga alxuraan ngay wax nga jombale war a toog ci plateau télévision àdduna dee seetaan nga damay juutu sax muy dox loolu ci am jom la ne Serigne Touba tooguloon muy dox Alaaji Maalik loon muy dox Mame Baye Niass tooguloon muy dox ndax bu doon dañoo toog muy dox ba leen tubaab bi bëggee def loo la leen def loo bu ñu bëggoon lu yomb dañuy ànd moom ci la tubaab bu bëgg waaye koo jaayati dem ànd ak ñoom dem liggéeyal suñu borom del siwaat jox jox jox ay njabootam ñu añ ñu dundee kon ñoom tooguñoon ñuy dox te santaane wuñ toog muy dox ndax Ablaye Mbaye Père maa ngi koy dégg mu wax lu mel noonu Touba gee tey bu doon toog muy dox du mel ne xel koom jaaga bu doon toog muy dox du mel ne ay nit ñoo ko jaayante ay nit ñoo ko ñàkkante ba Touba nii mu mel tey mu mel ko bu ñu wax deuxième capitale du Sénégal mooy te loolu toog muy dox defaru ko. waaw bu ñu demee tey ba Ousmane Sonko di jël exemple ci Touba ci kanam ci Touba ci kanam ci li nga xam ne mooy cotisation pour defar Touba ci ay nit. loolu la Pastef Pastef noonu sax la noonu sax la juddoo Pastef amul lenn loo xamante ne ñu jóge ci nit ñëw ci parti bi lu dul waa waa parti bi ñoo koy ñoo koy seen bopp defal ko seen bopp. ba ci élection lu mu mën a doon Ablaye Mbaye Pekh nag ni moom daa war a toog muy dox barki dem yàggul ñoom bëri yi tey yor seen lamiñ yu rëy di wax pale barki dem leen Macky Sall invité te ku ci nekk ci ñoom ñooñu nee nga 100 millions nga doon fayeku ñi ay 200 millions lañ doon fayeku ñi lañ doon fayeku Macky Sall teg leen den fecculoo yu mel ni ñu nekk fa di wange wange di juutu ñàkk jom ci loo xamante ni man Fall Paradise boo ma Macky Sall naroon invité di ma def loolu pour ma jaay sama peuple ma ma xaru man moo ma ko gënal barke Seexul Xadim te ñu bëri sax boo leen di wax la dañ naan non day fekk Macky Sall daf laa invité wul rek dama di ndox fa mu doon taw ba léegi ba dem fekk fa tepp teppal ñay gore ba léegi dañuy gore bu ñu doon xiifi dañuy gore ñay dee ñay dee ci ñàkk gore moom jarul sa xiifal lu ndaw ñu gore di ñun du kuy gore di ñun ay gor la ñuy doon ba rek ñuy dee barke Seexul Xadim te na Ousmane rek lañuy topp ndax moo yee xeli naatal kaa ngi barki Serigne Touba ba jeunesse senegal yépp yeewu xippi xool kon bu ñu toogee tey mu neex ku nekk commencé génn di bëgg a diaboliser wala di bëgg a yàq xoolal lañu ñu aaree woon projet bi ba ba ñëw pale loolu lañ koy continuer di ko aar. képp ku ko nar a gàkkal wala benn kaña wala benn golo boo xamante ne ñëw nga pour yàq li ci tool bi parce que Serigne Touba dañ lay rendi continuer bay tool bi tool bi amul tilim tax niñ ko aaree woon depuis deux mille vingt et un ak léegi ba tey ñëw ba relevé ñëw pale noonu lañ koy continuer di ko aar ba trente ans wala cinquante ans. waaw du ñu fal jamaa yi woon ko ginnaaw xalaatuñ ko. dañoo continuer di ko contrôler di ko di ko di nekk ci ginnaawam di ko jàppale képp ku nar a teg xeer ci kanam pour faxasal ko ñu sàn ñu jël yaakaar bi sànni sa mbalit ma ñun foofu la ñu taxawee bu leen jàpp ni génn nañ nguur gi rek dañoo lese suñuy bara fanam yow defe naa li nga daj démb ak bërki démb defe naa ku ku ku mu joxul ku mu joxul exemple rek dugaatal ci combat bi nga laal patriote yi wala nga dugg ci patriote yi patriote yi képp kuy dugg ci ñoom da ngay dem tàggu say bokk wala nga waajal sa bopp ndax ñu dañoo pare démb tey doog a ñëw ndegam Macky Sall la ñu tëbal pale dàq ko ca biti wax ma la yéen mbojo mbojo yii nii di taxawaalu dama ni leen waxu gëlëm xajul ci pantare ñun du ñoo génn du combat ku nar a opposé wu nag préparé wul ndax ñun quatre ans yi opposé wu amul yomb de amul bis bu mu sedd amul bis bu mu sedd pour mu clair amul bis boo xamante ne ni suñu opposant quatre yi sedd na ko ndax projet ci kaw projet tàng ci kaw tàng chaque jour ñu na génn ba yàlla jox ñu nguur ñu téye ko téye ko nag fas yéene ko téye pour liggéey Sénégal pour jeunesse Sénégal gis seen bopp pour population bi seen bopp ba yéen ennemis yi noon yi sax ngeen gis seen bopp ñun position boobu lañ taxawee te loolu incha allah rabbi day dem kenn du ko téye kon diaboliser yàq derak wax lu la neex yaa xam waaye du tey ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon défendre Seydina Ousmane tey lañ gën a am détermination te tey lañ gën a taxaw. ndegam ba ngeen am police ak gendarmerie ñu leen teg suñu kaw ñu ñuy sosol li ñu wax na ko su dul noonu ndegam boobu la ñu la ñu la ñu delluwul ginnaaw waxuma laa rek bi ñu demee bu affaire bi tourné suñu kaw yéen général Moussa Fall bii ngeen di defendre ci yenn journalistes yi. waaw Babacar Touré ah ba ci femme bi nekk 7 te ñoo dañ ko agressé bu yàggul li ngeen di taxaw di ràgg deram ay nit ñoo xamante ñoo doon liggéey ak général Moussa Fall ñoo génn wax ñu dégg. te doo defe naa ne mënoo leen gën a xam ñooñu général Moussa Fall sale boulot yi amoon Sénégal kan moo ko doon def gendarmerie ko xamoon gendarmerie bu njëkk xam ne gendarmerie bii nii ci jamonoy Macky Sall ak gendarmerie bu njëkk ça lan moo taxawoon ñu wàccoon général Jean Baptiste Tine yéegal Moussa ndax Jean Baptiste Tine sale boulot yi ñu ko bëggoon def loolu la bañ la rejeté ñu xam ni kii bu ñu ko ànd moom ci liggéey bi du du sotti ñu wàcce ko te koo xam ne ni sax retraitam jotagul. dem jëli général Moussa Fall teg ko GIGN bu njëkk boo ko ngay tiit ndax koor la boo xamante ne sénégalais yi dañ dañ doon dañ dañ doon yéemu ci nguuru Macky Sall la GIGN la tey bët bip même chose. léegi ma dégg ay journalistes yoo xamante ne ñooy toog di ko ragal ginnaawam non non général Moussa Fall yaayam c'est-à-dire sa waay c'est faux c'est faux ñaata yoon la Ousmane Sonko tudd dossier bii di ci tudd général musa Fall ni muy complot bi te mu clair mu clair et ndax tey ñaata nit man xam naa ci koo xamante ne nii ci loolu lañ ko libéré bu bokkoon seen seen dañ ko wax lu tëj ko 6 mois libéré ko keroog rek jour élection bi ñu gagné rek siège Pastef laa ko fekk. ci lan bëgg nga Ousmane wala xam nga Ousmane Sonko wala am nga contact ak Ousmane Sonko wala bokk nga Pastef wala def nga post Facebook wala nangam nangam. da ngay gis sax ci biir police ñoo xam dañuy bëgg Ousmane Sonko doon ndax buñ ko defee ñu indi leen ay problème tey buñ la nee central ñi fa jàpp ñëpp ay adjudant chef ñoo leen doon torturé ñi fa jàpp ñëpp ay adjudant chef ñoo leen doon torturé di leen tegal lu yi tey nga mel ni tey nga ñëw Kër Massar gii ñi fa doon jàpp ci mois de juin mois de mars yëpp ay adjudant leen doon torturé am na ci sama benn waay boo xam bi wax pro dañ ko dañ ko dóor ba ba ba yàq waa yàlla yi ba dañ ko mujjee rentré opéré ko nga dem tey gendarmerie foire même chose man naa ngi woon 100 ñañ ko def ñëpp maa ñoo ma doon toogandoo. ñañ ko def ñëpp maa ñoo ma doon toogandoo exemple rek man ci bi ñu ma jàppee luñ ma wax amul lenn luñ ma accusé lu dul trouble à ma lan te liñ may wax man amul ñoom luñ ci luñ ci fekke wala luñ ci gis ma ma di ko def. amul lenn loo xam ne mi ngi téye sama téléphone trois jours ci biir police bi ma jàpp mënuñu ma sa téléphone lii moo ci nekk te man ku ma xam xam ne maa ngi ci TikTok damay wax. te ba léegi sama TikTok bi ma ne ko ubbi ñu vérifier trois jours mënuñu mën bii wax bu danger nga ci wax samay WhatsApp mënuñu mën bii audio wala bii groupe nga ci nekk. lu dul daal bi samay grand frère ñooy toog waxtaan ak moom moom adjudant bi ma jàpp lu ko wax ordre bu jógee ci kaw ah ordre bu jógee ci kaw rek nit ki deful dara nga ko war a jàpp rek yow indi ko jébbal ko juge juge door mandat def loolu moom mooy réew loolooy dëkk. te yow seen biir yéen nga gis ay sàcc yoo xamante ne nii ay détournement de faux billets yoo xamante ni ñu ngi seen biir. te du ñuy kas sax trois mois ngeen gën leen bàyyi ñu ñuy ñuy taxawal nit taxaw fii wax Ousmane Sonko lu ko neex dara du ko ci fekk nga wax lu ndaw Macky Sall ñu jàpp dugal ci kaso bi nga defe ne loolu mooy continuer di dem yéen te boobu yéen ñii di ngaamu tey di wax boobu yéen a ngi ci teg bët kenn amul fitu ngaang ndax boobu yaa ngi xeex ci interpersonnel léegi tey ñu dem ba jot mbuur ngeen wëlbit ko bëgg a réplier seen kaw du jàll boobu ngeen dal te barke Serigne Bamba lu ci waaye guux wala lu ñu ci waaye yàpp wala loo ci encaissé dafa ne mën nga mën nga daw attaque ñun ñun ba doo replier waxoo dëgg saa ñun ñoo leen gën a pare tous les côtés ndegeen ba ngeen li may wax sànq yor ngeen fi pouvoir yor armée yor police yor gendarmerie ñu jàmmaarloo ak yéen ba duma leen nangu seen pouvoir téye ko waxuma laa nag loolu ba ngeen ci yoratul dara loolu yëpp ba ngeen ci yoratul dara dama bëgg ngeen dal càmm te bàyyi diabolisation bàyyi yàq der bi ñii ay ndaw lañu ay xale yu tuuti lañ yàlla dogal li muy dogal ci ñoom ñu am détermination pour defar seen réew ngeen war a leen jàppale ay ndaw yoo xamante ne nii xalaatuñu seen liggéey avance xalaatu ñoom bu ñu sañoon ñoom rek ñooy tekki ñoom rek ñooy am. Sénégalais yi di xiif di mar di dem hôpital du ñu mën a faju yooyu yëpp di gàllankoor ñoom ñuy tedd ñoom di jóg loolu dafiy jeex lu ñëpp bokk ñëpp a koy ñëpp ci yem. déggoo leen benn yoon euh, président Bassirou ni làmb dootu fi waaye li mu wax am na ci li Birame Souleye wax am na ci plein droit wax ko ndax li mu wax tey mooy li nga xamante ne nii dañ ko daan dagg mbëri te du xam fu mu jëm yaa ngi dégg li nga xamante ne nii daaw leen ko fay yéen yéen promoteurs yi ci impôt la ca des du ñu xam fu mu jëm yenn salle bu la yéen daan def ci biir làmb yoo xamante ne nii daan na ñëw waroon na ñëw ci askanu Sénégal mu yem ci seen biir yooyu yëpp dafay jóge làmb dinañ ko organiser waat dinañ ko moderniser waat tegaat ko ci yoon jox ko ñi nga xamante ne ñoo ko mën a yor ñu yor ko comme niñ ko defee ci ministère bi ndax fii gi gi nga ku ci nekk li nga mérito wala la nga xam sa métier la moom ngay gérer importul ay ay postes yu am a neex de bu boo ngeen génne lool seen bopp yi bu boo ngeen génne seen bopp te xam ni làmb kenn interdit wu ko Sénégal waaye nag la mu doon doxee mooy changer bu baax a baax. kon jaru diabolisation yi jaru yàq der yi naan ay biram Souleye nee na nii Birame Souleye nee na laa li mu wax c'est plein droit. ndax tey ministre bi nga xam ne moom moo jiitee l'intérieur wala ministre bi xam ne moo jiitee éducation wala ministre bi nga xam ne moo jiitee leneen noo koy tuddee làmb noo koy tuddee làmb kon moo nga naan tey te te li ma gën moom boobu tey ñi nga ñii tey ministres yi yëpp bañ doonagul dara kenn xalaatul leen dara kon boo demee ba tax nga leen tuddee làmb kon da nga am ci loo yaakaar ci ñoom te ñoom lañ lay jox ñu ko du Macky Sall wàcc na est-ce que bu subaa boo ko tuddee làmb dina ñëw dina ñëw jox lay milliards wala ay Abdoulaye Wade kañ la fi jóge ba ba mu fi jógelee tuddee ngeen ko làmp maître Abdoulaye Wade ba mu fi jógelee est-ce que tuddee ngeen ko làmp Abdou Diouf ba mu fi jógelee est-ce que tuddee ngeen ko làmp xam ngeen ni yoratul daray Sénégal léegi nag yéen da ngeen bëgg li nga xam ne ñëpp a ko bokk ñu yëkkati ko jox leen seetaan ñeneen loolu dafay jeex te loolu mooy exemple bi gën a gàtt ndax ku doonul dara doo ko tuddee làmp ku doon dara rek ngeen di tuddee wala ko leen yaakaar dara.